ne dañuy tànn xale yi nga xam ne dañ doon def seppe xale yi nga xam ne dañ doon def CE2 xale yi nga xam ne dañ doon def cm e bu ñu composé ba pare ñu tànn si ñi nga xam ne ñoo xalaat ne dañ xalaat ne ñoo ñoo tane ñu yóbbu leen waat si yeneen centre boole leen ak seen moroomu départ seen moroomu ville bi ñu def concours concours boobu nag bañ sa pare si lañ am xale yoo xam ne ñoo si génne ñoo jël raaye yi xale yooyu fanweer la seppe fanweer ce fanweer CM2 e concours bi concours 2020 2021 la daaw biñ koy def yépp essayé won nañ jël mesure barrière def ko mais bañ ko defee ba wara a bobu dafa fekk ñu téré dajaloo yi looloo taxoon feetu daaw bi ñu indi ko ba mais bi moy juroomi yoon juróomeelu yoon ñuy def concours bi au niveau de Rufisque commune. à l'élémentaire c'est largement atteint mais euh, au fur et à mesure que ñuy dem CM di dem lycée day wacc ndax li ñu wax léegi dafa am ay facteurs yoo xam ne ñoo si dugg di gàllankoor jàngu xale bu jigéen bi. Ah, est-ce que fii ba muy commencé quatre-vingt-quinze ay jàngalekat yu jigéen ñoo jogoon ne ñoom am nañ chance seeni parents yóbbu leen école mais dëkk bi nag sooxe na si mbirum jàngum jigéen ñu ne nag nañ jog xeex xale yu jigéen yi ñu yóbbu leen école quatre vingt ba léegi def nañ chemin bu bari. moom la may laaj léegi ma ne ko xale yi léegi jigéen ñi ñu ngi leen di yóbbu école léegi xel xalaatatul sa doom juddu ba am 3 ans wala 2 ans muy jigéen muy góor te yóbbu woo ko école waaye lii des si est-ce que fii pour ñu xeex ko mooy xale yu jigéen yi mën a toog toog bu mucc ayib parce que waxuñu toog rek xale yu jigéen yi dañoo war a toog si environnement boo xam ne day tax jigéen nekk fa à l'aise ndax xam nañ ne xale bu jigéen ak xale bu góor seen morphologie bokkul xalé bu jigen dafa am soxla yo xam xalé yu góor peut-être amuko lolo waral Escofi di def euh, un peu de la sensibilisation mais aussi di def plaidoyer ci autorité yi ci defarinu école yi ci toilettes séparées mais aussi ci jël en charge xalé yi nga xam dañuy dem CM xalé yi nga xam dañuy dem lycée xam xalé bu jigen bi yaramam day commencer di soppeku ñu mën ko di taxawu ba jangam baña a ci stade que fi association la. association de femmes enseignantes euh, vrai bien que ñun enseignantes nous sommes supérieurs, nous, IFIA et ministère mais association bi c'est une association de la société civile mais qui travaille en étroite collaboration avec euh, les IF et les IA et la communauté éducative en général Ce euh, que wax dëgg la ñun suñu ay cotisation nous des cotisations ñun nous mécènes des pour ñu réussir lu avons nous waaye amuñu subvention bu benn mairie que ce soit amuñu benn euh, budget boo xam ne dañ ne lii est-ce fi lañ dégg naa nag si mairie yi am na ligne budgétaire boo xam ne est-ce fi lañ fa bind mais ñun mosuñu see jot ñun est-ce que fi Rufisque commune de man ba ma fi nekkee présidente ba léegi mosuñu koo jot donc ah, femmes enseignantes yi est c'est le lieu de les de les féliciter de les encourager ñoom ñooy cotiser directeur directrice d'école yi ñoom tamit ñooy cotiser pour concours bi mën a nekk Euh, bonne volonté yi comme suñu ay IA suñu ay suñu ay bonne volonté yi comme suñu ay euh, parrains suñu ay marraines ñoo ñuy jàppale les mécènes pour que journée bi mën a